أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الم تر ان أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم yaslawnaha fa bi'sal masir bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu àq di leen bal àq di amaat mbégte ak kontante ñëwaat ak yéen seen tafsirul quraanul karim xam ngeen ni tey mooy suñu fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru koor bi suñu fukkeelu dars ak juróom-ñett di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit suñu tafsiru tey nag maa ngi koy may waa Dubai soxna Ami Sall ak sama sët yooyu fa nekk Aïcha ak Fatima ak euh, Halimatu Saadiya ak sama chéri Seydina Aline ak Serigne Touré di may Pablo macha allah Pablo mi nga xamni mo fa nekkal sénégalais yépp danaka di may soxna na fi di diko may soxna eh, seigne Ousmane Diop ak eh, soxnam Adja Thiam soxna Ndey Assu ak eh, wa Dubai yépp tay mom yeen la jaglél suñu tafsir ak sama xarit bobu di seigne Moussa Gueye allah di len ñaanal yalla defal len jamm fu ngeen di nekk xam ngeen ñi ngi won suratul mujadila yàlla leeral fi ay atte yoo xam ne mu ngi jëmoon ci zihaar maanaam koo xam ne dafa wax jabaram yaa ngi mel ni su ma la naree tee tiim mi ngi mel ni ma tiim sama yaay ñaaw gi mu ñaaw ak yàlla atte yim ca teg mooy képp ku ko waxati sa soxna soo buggee dellu si waat ca wax ja dangay ngay goreel jaam mbaa nga woor ñaari weer yu tegaloo mbaa nga leel juróom benn fukki miskin ndax wax ja bon nga mu bon yàlla nag ñëwaat ci beneen aaya mooy inna alladina yuxaaduuna allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim ba aaya bi jeex aaya bi yàlla mi ngi ciy wax ak waa màkk ñoom bi yàlla wàccee walla bi xeexu ahzaab ñëwee ba yenent bi waxtaan ak jullit ñi ñu war a gas kàmb yi nga xam ne mooy tax yéeféer yi bu ñu ñëwee duñu mën a dal ci kenn seen kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak salmaanul farisi yi ne ko ñi daal ay kàmb yu rëy ngay gas fas mënul jéggi kàmb su ko defee bu ñu ñëwee daal di eh, duñu mën a egsi si ñun mu nekk benn eh, dil boo xam ne tegoon nañ ko yéefar yi nag daal di ñëw commencé nag eh, naafeq yi di fe di di di ba ñu déggee loolu dem di ko wax li nga xamante ni moom mooy yéefar yi pour bëgg a yàq moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon la yàlla di waxal fii yàlla mu ne <clears throat> inna ladina naka ñi nga xam ni yu xaaduuna allaha dañuy jéggi frontière yàlla yi di ko weddi wa rasulahu ak ñoom day perte nañ torox nañ kamaa ku comme ni mu perte woon alladina min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon di waa badar yéeféru badar yi yàlla mu ne waaye waqad anzalnaa wàcce naa man yàlla ayatin ay kéemtaan bayyinaatin bayyinaatin yu wér péng yu leer nañ waaye nag walil kaafirina ñeel na yéefér yi adaabun mbugal muhiinun bu doyadi kañ lay doon yawma yabaasuhumullahu bis ba yàlla dina leen dekkal jamian mboole seen ñoom ñëpp dekkal leen ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi li yawmil fasli bis bi nga xam ne mooy teqali diggante fen ak neen ak caaxaan ak dëgg yàlla mu ne su ko defee bu bu keroogee fa yu nabbi'uhum ñu xibaaral leen bi ma amilu ci lañ jëfoon muy lu baax dinañ leen ko wax muy lu bon dinañ leen ko wax lépp lu nit jëf muy lu baax muy lu bon yowmal qiyaam bis boobu dinañ la ko wax yàlla mu ne ahsaahu llaahu yàlla waññi ne ko konte ne ko réglé na ko wa nasuuhu ñoom day fàtte nañ léeg-léeg nga def dara lu bon fàtte waaye yàlla moom fàttewu ko wallaahu yàlla ala kulli shay'in lépp loo gis rek lu mu munti doon shahidun way seede ci <clears throat> yàlla subhaanahu wa taala mu ne fàttaliku leen bis bi nga xam ne dinaa dekkal yéefar yeeg jullit ñëpp ñu njëkk ak ñu mujj bis boobu ma yowmal qiyaamati wala yowmal fasli bëri na ay tur mu ne su ko nag man yàlla dinaa leen xibaar lépp lu ñu jëfoon ci lu baax wala lu bon man denc naa lépp lu ñu def mais ñoom fàtte nañ ko xam nga lu bon dafa yomba fàtte yàlla mu ne waaye keroog di ngeen xam ne day lépp lu nga xawoon rek man aji seede laa ci muy lu baax muy lu bon yàlla mu ne alam tara xanaa dangaa gisul na allaha naka yàlla mu xam na maa fi samawaati li nekk ci biir asamaan kaw asamaan wa maa fil ardi ak li nekk ci biir suuf lépp yàlla xam na ko maa yakun di nekk min najwa ci déewante salaasatin ñi ñett illaa huwa lu dul moom yàlla raabiuhum mooy ñeenteel seen képp koo xam ne yaa ngi déewante bu dee ñetti ngeen yàlla moo leen di ñeenteel <clears throat> mu ne wala xamsatin wala ngeen nekk juróom illaa huwa saadisuhum lu dul yàlla moo leen di juróom benneel wala adna min zalik wala lu gën a néew ñett wala aksar wala lu gën a bëri juróom illaa huwa maahum lu dul yàlla mi ngi ànd ak yéen <clears throat> aynama kaanu fi ngeen mën a nekk summa yunabbi'uhum topp mu xibaar leen bi ma amilu ca lañ jëfoon yowmal qiyaamati bis bi inna allaha naka yàlla alimun aji xam la bi kulli shay'in ci lépp lu ti doon yàlla dafay tere ay deewante surtout bu nekkee nag ñaar ñett wala ñeent boo gisee yàlla dafa ne ñett ma ñaa leen di ñeenteel bu dee juróom maa leen di juróom benneel wala lu gën a néew wala lu gën a bari li ñuy bañ foofu mooy ñett nit toog ñaar ñi deewante bàyyi kenn ki yàlla nee na si boobaa man maa ñëw ñaareel kooka wala ñett ñeenti nit toog ñuy deewante juróomi nit toog ñuy deewante boo gisee yàlla ñaar lim yi si lim yëpp yu tool la ñuy doon maanaam ñaan ñi beru bàyyi kenn ki wala ñetti ñi beru bàyyi kenn ki wala ñeent ñi beru bàyyi kenn ki loolu la yàlla di bañ yéefar yi dañ daan bàyyi ba jullit ñu toog ñu daal di murmuri nag di jé di déewante kii daal di wookee bàyyi keneen ku mu toog ñuy déewante naafiq yi ñoo doon def loolu ak yahud yi yàlla mu ne loolu baaxul de kuy deewante kuy wax da ngay wax lu leer déewante bonut waaye bu fekkee déewante boo xam ne naa feq moo ko lar lal ak ay plan bu boobaa dafay araam moo tax yàlla ne bu boobu yii ngeen def yëpp deewante yii sungeen ngeen beree kenn ki man maa ñëw wéttali ko waaye nag dinaa leen xibaar li ngeen doon wax te li ngeen di wax yëpp xam naa ko yowmal qiyaam yàlla moom ku xam la yàlla ku xam lépp li ngeen di wax la yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina si ñi nga xam ni nuhu tere was na leen anin najwa ci deewante dañ leen ko tere woon bañ ne bàyyi nañ ko waaye xam nga naa fekk la muy wax bokkut ak la muy jëf summa na topp ñu dellu lima nuhu anhu ca lañ leen tere woon dañ leen ko tere ñu ne bàyyi nañ ko waaye nag te bàyyi wuñ ko dañuy bàyyi ba yàlla defe ni eh, ba yonent bi toog ñu commencé waat nekk ci seen deewante boobu muy yahudi waaye te naajoo na ñuy déewante bil ismi ci luy bijji bàkkaar seen déewante yëpp boo ko xoolee mooy lan nu ñuy def rek ba daaneel jullit ñi nu ñuy def rek ba indi sikki sàkk si jullit ñi su ko defee jullit ñi loolu ñu daan deewante bu yàggee daf daan indi sikki sàkk si ñoom ñuy indi ñaaw ñort di xool li nga xam ne moom la ñuy def yàlla mu ne ñooñu day wala odwaane ak nooneel deewante bi li taxoon ñu koy def tamit ut nooneel seen diggante ak jullit ñi rek wa maasiyati rasuli ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon gis nga ne ñoom seen deewante lépp amul woon njariñ li ñu doon deewante lépp mooy ismu odwaan maasiyatu rasul bakkaar ni ñuy def ba ñu nit ñi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xam ngeen ne loolu moom du nekk loo xam ne luy dagal la yàlla mu ne wa iza bu buñ la dikkalee nag xayyaw ko dañ la dinañ la nuyu bi maa lam yuhayyika bihi llaahu nuyoo boo xam ne yàlla sax nuyuwu la ko dañuy ñëw yow yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dafa feeñal naa feq yi dañ doon nëbbatu bu ñu ñëwee deewante di wax lu bon di lalal yonent bi sallallahu alayhi wa ay pexe bu ñu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi nag di ko wan kanam goo xam ni di waxtaan ak moom di ko nuyu di mel ni daal ñoom dañ koo bëgg yàlla na ko defal attention ci ñoom de ñii day li ñuy wax gëmuñu ko ay naafeq lañ la ñu yaakaar ni moom dañuy yaakaar ni mën mën nañ laa nax waaye mënuñu la nax ndax yàlla man ma ànd ak yow man yàlla maa ànd ak yow lu ñu def rek dinaa ko feeñal yàlla neena bu ñu ñëwé dañ lay nuyu nuyo bo xamne man nuyo ma lako yow yàlla yëkëti la ba nga defe ne dañ la bëgg fekk bëgguñu la wa yaquluuna ñuy wax fi anfusihim ci seen bop law laa yuadibuna allahu ay bu ñu yàlla mbugal won bima naqulu ci li ñi wax ñom xam nañ ni sax la ñuy wax baaxut wala bu ñëwé na yenenbi sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka duñu wax assalamu le assalamu alayka moy yàlla na de nekk ci yow yenenbi ne len wa alaykum ak yéen assaam moy de yàlla mu ne lolou xam nga ne man yàlla nuyoo ma la noonu man damay wax ni buñ lay nuyu dañ naan asalaamu aleyka ya rasulallah noonu lañ lay nuyoo su ko defee nag dañ naan ah ñun day wax ji sax yàlla duñu ci mbugal ñoom wax jooju ñu doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy jàpp ne yàlla du leen yàlla daal di koy leeral yonent bi nag ne ko buñ la ko waxatee rek wax leen wa aleykum ndax dañ lay ñaanal dee dañ lay ñaanal lu bon yàlla mu ne ñooñu xasbuhum doy na leen ëllëg yawmal qiyaam jahannama safaras jahannama moom la ñuy jaaru moom la ñuy dugg yàlla nañ ci yàlla musal <clears throat> yaslawnaha dinañ ko jaaru dañ leen dugal ci safara soosu fa bi'sal masir bon na mujjuwaay bi seen ëllëg yowmal qiyaam moom mooy safara jahannam te xam ngeen ne safara jahannama tàng na metti na képp koo xam ne mooy nekk sa mujjuwaay ëllëg yowmal qiyaam fa ngay mujj bon na fa ngay mujj nekk na mujjuwaay boo xam ne bu metti lay doon kon lii mooy li nga xam ne moom lañu indi tey ci darsi bi ñu ciy war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ay nit bu ñu toogee rafetul ñaar di déewante bàyyi ñi ci des yàlla daf koy tere déewante daal dina ñëw ci kanam ci leçon bii di ñëw suba bu dee lu baax daal ngay def wala lu baax lu baax ngay wax wala li nga xam ne da ngay digle lu baax wala ngay tere lu bon bu boobaa moom dina dagan waaye bu fekkee da ngay am na si ñoo xam ne sax mën ngaa toog yéen ñett ñaar ñu beru di jëw kenn ki wala ñu nekk ñeent di ñett ña beru di jëw kenn ki loolu dafa araam ci islaam ay nit bu ñu toogee booy wax bu fekkee li ngay wax lu dëgg la waxal rek ñëpp dégg bu fekkee li ngay wax dëgguwut nga noppi te yàlla tax yéefar yi nii lañ doon def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla weer leen génn leen seen wax yooyu ñu doon wax yàlla nag daal ni nag yonent bi teg ñii ay naafeq lañ na nga leen moytu bu baax a baax waaye ku koy def tamit da nga xam ne yaa ngi def jëfi naafeq booy wax waxal rek li nga xamante ne nii mooy dëggu te wax ko ci biir nit ñi bu deerul kii la bu fekkee nag ki nga war a waxal li ngay wax ak moom moom rek la concerné bàyyil ba ngeen wéet ñeen ñaar ngeen door koo wax waaye du rafet ngeen toog si biir ay nit nga déewante kenn bàyyi ka ca des wala ñaar bàyyi ñi ca des loolu moom islam da koy tere ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi leen di jox dig daje suba ak jàmm incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu